Moustapha euh, nee nañu chaque année 300 jeunes dañu ñëw ci marché de l'emploi euh, loolu euh, alors que Sénégal li ci mën a jël maanaka matul san wala ëpp ko président Sall il a fait des promesses en quinquennat bi mu njëkk def 500 000 emplois la waxoon après atteindre na ko wala peut-être à quelques chiffres près septennat bii nii à Pikine on s'en rappelle non quinquennat bi plutôt à Pikine on s'en rappelle promettre na un million d'emplois en 2021 bi jafe-jafe yi amee aussi mu wax ak jeunes yi je vous ai compris créer programme xëyu ndaw ñi euh, mais malheureusement on constate que xale yi ba tey ñu ngi jàmbat ñu ngi tukki ñu ngi génn réew mi xëy na problème la bu metti bu jafe mais vous aussi les hommes politiques de l'opposition surtout euh, gis bi gis-gis bi ngeen ciy am est-ce que aussi euh, ànd na ak objectivité dans la mesure où da ngeen koy jàpp ne xëy na échec gu régime bi la jërëjëf Modou Awa jërëjëf fii ki monsieur Diagne jeexalee fa lay tàmbalee li war a def xool tey ndaw ñi bala marché de l'emploi bi lan la soxla ñu méngale suñu formation professionnelle ak l'offre d'emploi mhm. daf ci am solo mais ndax nit ki suñ la falee du ngir nga jël problème yi nga am tey nga ne démb nga ko hérité soo gisee ñu faloon nit daane Abdou Diouf en l'an 2000 te fi Ablaye Wade c'était pour mu résoudre problème sénégalais. on a a soo gisee ñu daane Abdou euh, Ablaye Wade pour indi Macky c'était pour régler que solutionner suñu problème mais seetlu nañ loolu yëpp ay échec la mais man ndaw laa mais maay fàttaliku migration bi meluloon nii ce n'est pas parce que y avait pas de l'internet dañu amoon ay foyer soo seetloon ay côté Louga nga doon dégg ay migrants ñuy jógee fii di dem wala ay côté Fouta yooyu. Mm-hmm. mais ni mu meloon nii melu ko woon et c'était organisé xawoon na tane ñi doon jël yoonu suuf bariwul sakantumaa géej amuloon pour dire que tey man quand j'ai vu le rapport de l'ANSD dama kontaan dama tiit. Mhm. parce que suñ ne la moitié de la population sénégalaise c'est 19 millions d'habitants c'est c'est moins de c'est c'est c'est de 19 euh, euh, les les jeunes âgés de mois de 19 ans ñoo nekk 50 pour cent loolu nguur guy ñëw mbala nguur gu fi nekk su la tiitalul di nga jaaxle moo tax dama seetlu pour man li li li lajjloo ñi li ñu dindi ce qu'on appelle le ministre du plan le ministère du plan moo waroon tëgg loolu yëpp xool Sénégal dans 10 ans dans vingt ans dans 50 ans suma population fii lay toll lii laa war a def lii laa war a def ba nga xam ni tey le marché de l'emploi lépp fi lu fi ñëw war naa ko mën a taataan liggéey ko mais ñun dañu seetlu li ñu doon ngàññi parti social te dama bi muy wax sax sama dama reece biir parce que moom c'est un ancien socialiste mm-hmm. leader am liggéey ci lu am solo nekkoon un comptable du régime socialiste donc su amee discours bi dama ci xaw a pour dire que les autorités balaa ñuy promettre dara nañ ko jàngat mm-hmm. tey ñun parti bi ñu nekk taxaw Sénégal on a des cadres yuy travailler <clears throat> sur le programme natt xam ne ni tey lan la Sénégal attan président Khalifa Sall su falo est-ce que mën na li mbala mënu soo seetloo moo tax ñun dugg ñu ci dynamique et promesse mais on travaille sur des éventualités sur des données factuelles yi nga xam tey jeunes bi comprendre nañ Sénégal tey bari na mm-hmm. te suñu méngalewul offre d'emploi bi ak la qualification professionnelle loolu dinañ mën a indil jafe-jafe te je pense que ça devrait être même. mais le discours que vous tenez vous opposant aussi. est-ce que lu baax la dans la mesure où ëllëg. mën ngeen hériter problème bi. loolu moo tax ñu nax garde fu yooyu la ñu jël tey ba nga xam ne nii ñu ngi xool. ñun su président euh, Khalifa Sall ñëwee la première chose à rétablir c'est le ministère du plan parce que il faut nga pris en prévisibilité. mënoo nekk planification sax du rek ci ci xëyu ndaw ñaa ah, boo seetloo même ci demande demande ndox mi Sénégal location bi yooyu yëpp dafay bett gars yi en te loolu yëpp soo seetloo su ma la waxee ministère de la mm. planification prospective lay indi loolu day indi ce qu'on appelle la visibilité la visibilité dans dix ans cinquante ans trente ans dañ ko mm-hmm. war mais malheureusement des fois base bi ñuy jël base de calcul bi day faussé mbalal ñu nax nit ñi ñu xam ne lii mënul nekk ñu ñu jëm leen nax mais tout compte fait tey yaakaar naa ne gouvernement bi fa nekk li ko fi dese mm-hmm. war na góor war na góorgóorlu lii ñu dakkal ko dañ ko war a dakkal parce que ce n'est pas une raison aussi parce que bu njëkk exemple mais dakkal ko aussi est-ce que Sénégal la. si mën nañ ko man parce que c'est pas propre au Sénégal aussi ah. sëñ Modou ah Awa man je viens de la brousse. kii ñii ci àll bi lañ jógee. ñun ñëpp ñun ñëpp ci àll. mais mhm. soo gisee potentialité yu am ci monde rural bi tey en terme d'agriculture en terme d'élevage il suffisait que li Senghor defoon atam kilo gerte dërëm bërigo junni ñëpp dellu ci mbay tey soo soo fi waxoon kilo gerte <laughs> cinq cinq mille francs bërigo bi fukki junni nit ñi dañuy dem béyi mais malheureusement soo seetloo ni ma la ko waxee. ñi ñuy geere tey dafa mel ni nan la ñuy def ba amaat leneen mais je pense que Merci ils ont beaucoup. un sur le plan de la politique de la jeunesse ah, Lamine en 2021